mooy sëñ Mbacke Abdourahmane sëñ Mbacke Abdourahmane moom mi ngi dem ci ku ñuy wax xam ko muy jàngale xam ko foofu jumaa yi foofu la tàmbalee ak ak jàng xam-xamam ginnaaw bu fa jógee nit mu jaar ci benn béréb boo xamante ne ñëpp xam nañ ci foofu la mottalee jaaram waaye nag jaaru jaar ñaari yooyu taxul mu bàyyi jàng ak jàngale continuer ci gëstu yooyu ci biir loolu sax ci la at mi ci benn concours ñu jël ko mu war a jàngale ci école yi nga xamante ne mooy école gouvernement ñu affecté ko fële ci dara mu tàmbali ko jàngale jàngale fa ay at ginnaaw bi ñu jëlee ko fa mu ñëw Thiès Azhar bi sëñ Mourtala jàngale ko ci ayaas ginnaaw bi mu ñëwaat ci ñëwaat ci ci école bi nga xamante ne moo nekk ci ndaaw si biir loolu it mooy bi nga xamante ne mooy gisee mooy imam imam yi ci jàkk yooyu nga xam ne mooy jàkk sëñ Mourtala bi nekk ndaaw parce que nit teewul loolu lépp taxul mu bàyyi di xam ak di xamle am na émission boo xamante ne mooy fatawaa di jàll ci biir mooy bi nga xamante ne ñaari mbir mi di ji ma tontu seen laaj ci wàllu diine kon ci gàttal kooku mooy ci nga xamante ne moo fas yéene waxtaan naka noonu it bari na ay conférence boo xamante ne am solo ci dundu bi lu am solo ci dundu doomu aadama muy waxtu waxtu am gi am solo ci doomu aadama mooy li nga xamante ne ci def fas yéene waxtaan bi tey kon bala gudda gudda rek li nga ne képp koo xamante ne xam nga laaj boo xamante ne aju na nga xamante ne moom lay waxtaan wala beneen laaj boo xamante ne ak ci wàllu diine incha allah boo ko joxee si bàyyi bàyyi laa jaxat incha allah desi ci tontu naka noonu tamit laaj nga xamante ne ñëwoon na fi ci fan yi baax weesu te mu aju ci wàllu diine tey fas yéene nañ euh, nga xamante ne moo fi jàlloon ak lii nga xamante ne mooy waaj jàll képp koo nga xamante ne ñoo yor waaj boobu incha allah day jàpp kon li ñu moom moo koy kàddu gi rek dama koy teg mooy foo ko teg alhamdulilah wa sallallahu taala wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen nuyu nuyoo islam am solo di leen doxal ci weeru barab bu sell bi ñu nekk di ñaan borom subhanahu wa taala yëngu yëpp yàlla ko yàlla nangu te ful ko te tàmbali bi ñu rafetlu lool taxawaay yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mel ne ñoo dégg nañ bu baax lu taxaw kilifa yi seenti barab yi barab bii daal moo xam ne yi mel ne moom yëpp nag ko wax waaye dañ ko sàmm te lu am noonu solo jarul jullit di ko sàmm danañ jéem a wax ne lan moo war a jullit kon kii mu taxaw ci wax ci tàmbali mbokk yi waxtu wëndu wala nga wax waxtu wax waxtu ñu bàyyi ci moom nag mu ëppale nañ ko waaye lu bëri mën nañoo wax mooy capital bu nekk nga xam ne su ko sa ñàkk ñàkk lekk ndax lu waaye leen si kaw ko ku am ngërëmu yàlla wax loo ko waaye nag lu waay ñàkk yi wax loo ko kon am solo bi kooku tàggatoo góor yàlla ñu ngeen dégg yëpp seen nekkoon ci yow lu ñu am ma ko yi nit am yëpp wax la ci gën a moo ci gën a cher ndax moo la mën a may nit su borom la ñu doom yi ngir mu nekk xalifa ci kaw si nekkal fi yàlla di jaamu di dundal suuf kenn ku ne yi rol bi nga di yàlla daal ci sa ngir nga war koo dund ci kaw suuf si lu toll noonu ci waxtu la la war a nit ku ne war na yëg ni amul ci waxtu lu mu lu war a sax li toll sa dund moom laa toll benn minute boo ci sànq rek sa war a def la sànq boo xam ne boo yëgee dana wax waxtu yooyu nga am sànq jafe nga daal di génn loolu baax na tudd bu ñu xam ko tudd bu ñu xam loolu taxoon na imaam al-Hasan al-Basri rahimahullah daa wax ne yow doo àggal na nga yëg ne ay bis yu daje ay bis yu daje benn bis bu jeex ci yow ak jus ci yow jeex su bis yi jeexee jeex yow na aadama innama anta ayyaamun mamduuda fa idaa madaa yawmun waxtaanee mën a baax loolu dama gis sama si mën a wax di wax am solo bi kon de daal di mën a wax loolu li ma wax bis bu ci yàlla benn bis ci yow ñàkk boo xam ne du la tëj sa loolu la wax mbokk yi kon mooy mooy la am na ku bëgg a fekk ci nga jaar fekk waaye ku sàmm ku ne waxoon la sax ñàkk koo jox jërëm wala sàkk ko wala ko àq ñu la amee ñu ko amee mu am solo lool la am solo loo xam ne waxtu nekk war nañ koy fàttali war nañ koy bàyyi ba ci njëkk mooy dafa am fu jàll nit ci dund bis yi jàll day jàpp ne bis boobu jàll lu rawatee wala yéen a ko def de waxtu bokk yi dafa yónni ak fu jàll kenn ku nekk am na cër boo am boo xam ne bu yàqu yàqu cër boobu rek nga jëm su jeexee moo xam ni nga waroon def def ko dara rek moo xam ni nga waroon def def ko dara rek wala bu dul mën na ne wa ilaa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saa'atan wa laa yastaxdimuun loolu xeet yoo xam waaye ñu ñu laaj biir kenn ku ne am na gis yoo xam ne ci alam na moom ko war a am nag lu ñu la sant dara ci biir bis yooyu na nga fexe bala ngaa jënd dara kon amoo ci temps lu doy wala lu des la sant la sant su waxtu ba jeexee kaw nga dem moo xam daf nga li dana doy moo xam ne beneen bi ci solo mooy du lu ñuy remplacer wax bu ko sa jàll jeex ñaar day ko lu ne ci ëpp na man nga dem soo ñàkkee naa ko ñu jënd la ko def taal bi ñu xasaan ba wax sa jaay jeex kenn loolu ko daal du del si waat ñu may ñoom lañuy ubbi bis yi nit ñi def nit da ko tëb rek wut ko ay tur wutal ko ay tur naan tey la jël bu ñu lay yàgg ñu naan ko dugal ci del si li ñu tey di mbokk yi ñu del si tey wax sa jaay jeex lu la ci waroon a defoo bis ba ñu tey tey lay jaay waaye yeneen bis yi ñëw ñu diwaat ko digal boobu it am na yu bëri yu bëri yoo xam ne soo dee naaj dafa am dama weesu woon ba léegi moom itam la lañ war a def wala saa bu ñu gisaalee dara war ko gis na xam ne gis boobu kat na ko lu mën di xam bokk nañu solo gis boobu yi seere gis nga xam ne dañu bare bare dañuy seere seen kër ci la wala si doyen mu ak si la mu wala ñii wala ñii suuf si nga toog di ci jëf di lay seere bi ko da lay seere bi loolu la ci moom loolu la imaam Xasan Basri daan ñu ne am na ñu wax ne xadiis la waaye wax yoon Xasan Basri la mu dëgg amul benn bés buy nekk lu dul dana am ay woor ñu woor ne na nga xam ne man ñii gis bi ñu lépp des la sa jëfit lay seet booy liggéey loolu la mën a booy liggéey tànku seet ba bala maa dem ma yóbbaale la dara su ma demee kat ma del si ba gis ne ci loolu sa maa ngi yow mi yan chaquka boobu illa rajul aada yarul aada ana xawkota in wa ala amali wa shahid fa tazawwad minni fa inni ilaa mawlid laa a'uudu ilaa yawmil qiyaama loolu boobu yéen a ngi gis yàlla sax ci li sax xaaral mu gis la la wax maa ngi doon gas yow bu may def lu ma ñaan yu bari la te lu ma gis ci yow rek gis nga ci naa ko seere rek kan sama te xeer su ma def yu bari la di mu ne léegi saa gis kañ danga la wax loolu foofu rahimahullahu wa taala wax ne na leen wàllu seeni wax ndax du taxaw day dem te ku demee lu bees ixfamu saa'atahu fa innaha zaa'ida xayru baa'iqa ni ngeen sàmm seen wax loolu léegi daal li nga xam ne ñoom suuf yooyu si jàng yi na ngeen sàmm seen wax xam ne wax la wax ne taxaw day dem te ku demee lu bees kon xel bu la dem léegi war a def lu muy denc ci kaw kenn mënut a denc waxtu ngir ne ëllëgee ba la ci moom bu